baabul li ab buntu la buntu bii nag moom ma liy wax jihaar jihaar moom it daa doon loo xam ne ba lislaam di ñëw daa fekk ñu ko daan def te daan indi ay jafe-jafe lool lislaam ñëw nag indi ca àtte yu leer a leer dañ koy jàng ci njëlbeenu ñu wax suuratul mujaadalati wala suuratul jidaal mu tàmbalee qad sami allahu qawla allati tujaadiluka fii zawjiha mu ne jihaar mooy ki nga xam ne jullit la mukallaf la wax soxnaam mbaa ab taaraam maanaam jaam bu jigéenam ci yooyu jamono ne ko yaa ngi mel ni ci man sama yaay mbaa yaa ngi mel ni ci man sama mbokk mu jigéen mbaa daal yaa ngi mel ni ci man nangam mais nga xam ne boo ko dee seet araam na ko faawu faawu araamu dappetoo li ci gën a siiw nag mooy mu wax soxnaam mbaa jaam bu jigéen ne ko yaa ngi mel ni ci man sama gannaawu yaay anti alayya ka wahri ummi loolu ku ko wax day mel ni daa araamal soxnaam soosu ci moom waaye nag yoon moom def na ca woyofal bu ko jàppee ci ak araamal day wax ne rek def na lu ñuy wax jihaar te balaa sañu jotee teg soxnaam soosee mbaa jébbéeram boobee faaw mu def alamaan bi mën naa doon yemale jëmmi ki ko lew ni ki soxnaam ak jëmmi ka ko araam araamuk dapet ba teyit nag mën naa doon yemale ab cër ci soxnaam ak cërub tookee nga xam ne araam na ko ni ki mu ne ko sa loxo bii mi ngi mel ne ci man sama loxol yaay mbaa mi ngi mel ne ci man loxol Zeyna bu mee nga xam ne noo bokk ndey ak baay xam ne kon mën naa doon yemale jëm ak jëmm mën naa doon yemale ab cër ak ub cër ba tey mën naa doon boo dee xool ci wet gee yemale jëmm la ci wet gee moom bu tudd fa ab cër ni ki bu ne ko anti alayya ka bu waxri ummi jëmmi soxnaam moom la yemale ab cër ci yaayam te mooy gannaawam moom daal ak nu mu ko mën di waxee rek bu waxee wax yi nu kii ko leew muy soxnaam ba ab débéeram mel na ci moom kee ko araam ni ki yaayam loolu mooy jihaar doonte sax da ko aj ni ki mu ne ko bis boo duggee kër diw rek xamal ne yaa ngi mel ni ci man sama gannaawu yaay loolu ak aj la bis bi soxna su duggee ci kër googee rek ñu jàpp ne def na jihaar balaa mën a jotee teeg moom fay alamaan boobu su fekkoon ne sax ba mu ko tëkkagut la ko waxoon ne ko bis bu ma la takkee rek yaa ngi mel ni ci man sama gannaawu yaay bis bu koy takk rek ñu jàpp ne def na jihaar boobu balaa mën a jotee moom rek faaw mu fay alamaan bi jihaar dañ ko yemaleeg fase bu ko ajee ci loo xam ne wóor nañ ne moom li ama am la amul nattable bu ñu xaar loolu ñëw dañuy jékki-jékki daal di teewal jihaar bi maanaam wax ko ne ko rek def nga jihaar bala ngaa sañ jotee sa soxna si def alamaan bi mel ne mu ne ko bu àggee ci kasu rajab rek def naa jihaar ci yow wóor na ne moom kasu rajab mi ngi ñëw bu ñu xaar nag ba kasu rajab ñëw dañuy jàpp ne def na jihaar rek fii mu nekk balaa sañ jotee moom rek fay alamaan boobu wala bu nekkoon bu subaa ci jant bi fenkee fee mu baaxoo fenke rek def naa jihaar ci yow bu ñu xaar ba suba ba jant bi fenkee fee mu baaxoo fenke loolu xam na ne moom mooy am ba noppi dañuy jàpp ne def na jihaar fii mu nekk balaa mën a jotee soxnaam rek fay alamaan boobu maanaam bu nekkoon def naa zihaar yow da tàmbalee waxtu sàngam ba waxtu sàngam buñ ko yemale foofa ni ki bu ne ko woon def naa zihaar ci yow da tàmbalee fii ba weer wi dee wala def naa zihaar ci yow dala ci waxtu yu may waxee ba jant bi so dañuy jàpp ne rek def na zihaar fii mu nekk fi saasay saasa te it bala ñu ko may mu jotee teeg moom mu fay alamaan boobu bu ñu jàpp waxtu wax ci weer mbaa nangami waxtu mbaa bis bu ñu faale waxtu wa mais nag bu fekkee dana soxnaam nangam faaw mu def ko bu ma ko deful rek jihaar naa ci yow dañ koy wax ne ko li fekk ngay def li nga wax doo mën a joteeg moom nit ki bu nekk woon su ma demul bitim réew rek def naa jihaar ci yow dañ koy wax ne ko doo sañ joteeg moom ba ba ngay def li nga wax dem bitim réew bu yàggee nag te mënta dem bitim réew soxna si ñëw jaatukat bi ne ko moom kat ba tey mënta dem te kon bu mën a joteeg man kon yoon da koy wax ne ko da nga mel ni ko def ilaa maanaam waat ne boo joteeg sa soxna daal di la may daal yenti weer soo fi demee bitim réew baax na boo fi demul bitim réew nag kon bu soxna si bëggee ñu fase ko la mu ne woon it danaa ko def mu ko deful rek jihaar naa ci yow sama soxna si bu dogoo ci bàyyi loola bañ koo def mbaa loola xas na raw moom def nga mënta amati ñu jàpp ne kon def na jihaar ba noppi maanaam balaa mën a jotee moom rek def alamaan mu ne ko ni ki mu ne ko woon danaa dugg moom kër diw bu ma fa duggul rek def naa jihaar ci yow bu dogoo ci bu fa duggati mukk mukk ci kër diw moomee mbaa far kër googu daa far lakk amatul fu mu dugg ñu naa ay kër diw jàpp ne kon def na zihaar ba noppi maanaam balaa ma jotee di soxnaam rek dafa fay alamaan bi nga xool nag lee mu ne in wati tukki fa anti alayya ka zahri ummi bu fekkoon ne zihaar ga ko aj ci joteeg soxna si ne ko du ma jotee yow bu ma jotee yow rek def naa zihaar ci yow kon xam nga suñ ko bàyyee mu jotee moom ñu ne zihaar bi am na dañ ne woon ku def zihaar balaa mën a joteeg soxna soose daa fay alamaan te moom bu bopp sawkaay bay dugg rek yoon jàpp ne def na zihaar mu ngi ci tegaat ci jotee mbaa sax ñor ji sawkaay ba mel ne kon jote naag jigéen joojee gannaaw ba mu defee moom zihaar te fayut alamaan bi loolu nag moo tax bu ne ko du ma jotee yow ma jotee yow rek yaa ngi mel ci man sama gannaaw yaay bu ñu nangu mukk mukk mukk mu jotee moom ndax bu jotee moom bopp sukaay ba dugg rek ñu jàpp ne def na zihaar te ku def zihaar moom war na fay alamaan njëkk door a joteeg soxna soosee moom nag kon ba sukaay bu duggee ba noppi ñu def na zihaar lu mu ca teg rek ci jote mbaa ñor di sax sukaay bu mu génn daal lay joteeg soxna sam defal zihaar te defut alamaan bi woon wax moo tax moom bu ne ko du ma jotee yow su ma jotee yow rek def naa ci yow zihaar dañuy jàpp ne lu yàgg yàgg yàgg des ko may mu jotee moom li mën a am daal mooy soxna si nangoo toog ñu bañ a jotee dara dara jëkkër jabar lañu waaye lu yàgg yàgg duñ jotee jote góor ak jigéen loolu rek mën a am am nañu ne sax dañ koy dóoral ajalul ilaa lii mu wax waaye su boobaa it digluñ ca lu may rek soxna si bu toogee moom ñeenti weer jotewuñ dara mu mën a wéy ci noonu rek bañ a jotee moom dara ñu wéy ci noonu li ci xaw a andi ak jàppandal de mooy su dëgëree bopp daal joteeg moom itam bu jotee moom ñu ne ko def nga ak moom jihaar lu mu ci tegaat ci ak jote mbaa not ji sawkaay ba ñu ne ko lu araam la ndax ku def jihaar war a fay alamaan te yow fayagoo woon alamaan waaye nag def na lu araam na jégglu rek ba noppi def nag alamaanu jihaar boobu kon mu dëgër bopp daal joteeg moom dana indi rek def lu araam waaye nag day jàll rek def alamaanu jihaar bi mais nag keneen koo xam ne rek dafa defoon jihaar yoon ne ko bala ngaa sañ joteeg soxna si def kafaara muy alamaan bi mu dëgër bopp daal di waaxu rek joteeg moom te deful alamaan boobu def na lu araam muy bakkaar rek nag alamaan ba war ko ba tey te war a jégglu boole ca kon ñuy daal di bokk àtte ni nga waxoon nag ci pase nga xam ne ñu ko wutaloon baat yoo xam ne ak xappatali ci pase wut ay baat yoo xam ne dàkkantal yu fës la ci fase wut ay baat yoo xam ne dañ ko tudd dàkkantal gu làqu ci pase fii it noonu la mel dañoo wut baat yoo xam ne soo ko waxee ñu jàpp ne ak xappati la ci zihaar wut ay baat yoo xam ne boo ko waxee ñu jàpp ne dàkkantal la bu fës ci zihaar ak nag baat yoo xam ne dañ koy jàppee dàkkantal wu làqu ci zihaar bu njëkk wax nag baati xappati yi ci zihaar mooy ñaari sart yi bu ca dajee rek xappati la ci zihaar mooy tudd na baatu gannaaw ba noppi tudd jigéen ci ñu araamal araamuk dappetoo nit mu ne ko anti alayya ka zahri ummi yaa ngi mel ni ci man sama gannaaw yaay xam nga tudd na gannaaw tudd na yaayam jàppal nag ne saa yoo xam ne ñaari baat yi ñu am na ci wax ja kuñ araamal ci moom araamuk dappetal buñ ko tuddee tudd gannaaw boole ci loolu mooy xappati ga baat yi nga xam ne nag jàpp ne ni ak xappati la ci zihaar moom bu ko góor gi waxoon jubli ca pase itam du tax ñu nangu ne pase la zihaar rek lañ ko mën a jàppee dàkkantal ba fis ci zihaar mooy mu indi baat yoo xam ne yaar yëpp te siwu ci indi na jigéen ji araamal ci moom araam ak dappet waaye booliwu ci gannaaw mbaa aju na gannaaw rek waaye indiwut jigéen ji araamal ci moom araam ak dappet yaar yëpp te siwu ci nit bu nekk anti ka ummi baatu zahru gannaaw ñëwut maag anti ummi yow yaay sama yaay ñooyemoo tudd na ko araam ci mu araam dappet mu yaayam waaye baatub gannaaw ñëwut kon loolu dàkkandal la ci jihaar lu mel ne anti ka ummi nag wala anti ummi may su ko wax te jublu ci ak teral akuk fonkeel may su ko wax itam jublu ci leneen maanaam mën na ko ne anti ka ummi wala anti ummi yow de sama ndey nga jublu ci ni nga may ñëwantee ak ni nga ma yërëme da ngaa mel ni ci man sama ndey wala dama laa fonk ni ma fonke sama ndey mbaa daal meneen maanaa ci li tax ñu wax lu mel noonu su boobaa kon du nekk jihaar su boobaa kon du doon jihaar bu ne ko anti xale ya ka zahri Moussa yaa ngi mel ci man gannaaw Moussa te Moussa xam nga ne góor la góor araam na ci moroomum góoram kon tudd na foofu baatu zahru gannaaw waaye tudd nag jigéen ji araamal ci mu araamu dappetu góor la tudd gannaaw góor la tudd tudd gannaawu jigéen ba tey bu ne ko woon yaa ngi mel ni ci man gannaawu Soda Ndiaye Soda Ndiaye mais nga xam ne bu soxnaam bu jébéeram ca ba jébéer amee jàmbur la ci moom rek su boobaa tudd na gannaaw jigéen jëm tudd du ko ko araam araamuk dapetu day koo xam rek du soxnaam du jébéeram nekk rek jàmbur ci moom nga xam ne yoon mën naa dox ba wëlbatiku takk ko ba tey bu ne ko woon sa loxo mi ngi mel ne ci man sama yaay kon loxo ak yaayam la tudd waaye tuddut gannaaw baatu jëhru ñëwut bu ne ko woon sa loxo mi ngi mel sama loxol yaay itam ba tey rek baatu jëhru gannaaw ñëwut loolu lépp dañ koy tudde rek dàkkentalu jihaar woo xam dafa fés li ñuy wax nag dàkkantalu zihaar wu fes woowu bu ko waxee jigéen ja te jublu ca pase moom day jàpp ne bu dee kuñ ko may ba mu wéet ak moom pase mu dog la ñett lay doon bu dee koo xam ne jot te wéet ak moom mayu kese moo fa dox ñu laaj ko ba xam lu mu ci yéene bu lu mu ne moom la yéene rek muy benn baa mu ne ñaar ñu nangu loola bu dee woon soxnaam yaa ngi mel ne ci man mati jóob fekk mati jóob moom day jaambur ci moom rek maanaam du soxnaam du jëbeeram jaambur la ci moom boo xam ne maanaam ñu dema dem ba mu takk ko bu ne soxnaam yaa ngi mel ne ci man kooku ba tey na mu waxee dàkkintal la ci zihaar waaye du kabbati baat yi mu ci teg ba tey noonu la bu ne ko woon anti kabbi nii wala anti kahulaami baa mu ne ko anti kal xamri aw kal maytati aw dami aw laxmil kinsir ci yàlla araamal ci alquran bu ko waxoon lu mel noonu ne ko yaa ngi mel ne ci man sama doom ju góor mel ne ni ma jotee sama doomu góor araame nga ma araame mbaa yaa ngi mel ne ci man sama ngóor mbaa yaa ngi mel ne ci man sàngara mbaa medd mbaa mbaam xof mbaa lu ko nuru ci alquran araamal ku mu ko wax te fekk ñu may ko ba wéet ak moom bu ci jubloo fase ñett lay doon bu dee koo xam ne jotute wéet ak moom nag daañu ko ca may yéeneem bu nee damaa fase te benn laa jublu ñu nangu bu dee ñaarit ba tey ñu nangu bu ci jubluwut fase muy zihaar dong loolu nag mooy xaaj ñetteel bi maanaam li ñu tudde dàkkante lu zihaar boo xam ne dafa làqu fisut loolu nag mooy jëpp wax joo xam ne laalanti wut ak daray fase laalanti wut ak daray zihaar lu may nag moom mooy wax rek moo wax ne fase la ci jublu mbaa zihaar la ci jublu nit ki mu ne ko demal mbaa lekkal lee mbaa naanal lee lu mel noonu dañoo waxoon ne bu doon ci fase itam baat yi moom sore naag lu ñuy wax dàkkental ci ni ñu koy jàngee ci téere yi waaye nag bu ko waxee te jublu ci fase itam ñu tuddee ko dàkkentalu fase bu làqu bu dee ci fii ci jihaar it noonu lañ koy def dañ koy jàppee da nga wax na ko te jublu ci jihaar rek ne jihaar la te dàkkental la bu ca làqoo làqoo saa yi waxee nag baat yi te jubluwu ca jihaar moom du ko doon te dara du ko ci wax mu ne nag ku def jihaar moom te daal di araam ci moom mu bànneexu ci soxnaam genn wet te deful alamaan bii nga xam ne moom la ko yoon teg mu ne soxna si nag war naa dogu ci dëkkëram jooju du ko laal du bànneexu ci moom mukk mukk li feeg mu def alamaan bi ko yoon sant bu ragalee ne sax dëkkëram yi moom ku dëgër bopp la mën na ko song ne ko daa jote yow te deful alamaan bi na dem ba ca àttekat ba mbaa mbooloom jullit ña mbaa sax kilifa ak jullit ga fa nekk mu wax ko na mu demee tax ñu teel a jaaj ji jëkkëram jooju bala ma ko song bëgg a jotee moom te deful li ko yoon sant bu fekkee jëkkër ji xam na yoon te it ku ragal yàlla la mbaa daal lu li xam ci moom mooy dana moytoo def lu ko yoon aaye kon bu defee jihaar bi ci soxnaam du tax ñu taqalikoog moom dañ koy bàyyi ak moom rek jàpp ne balaa jéem a laal soxna si dana def alamaan bi ko yoon wax góor bu defee jihaar ci soxnaam ñu ne ko mën laa bànneexu ci moom du tee mu sañ a xool kanamu soxnaam soosee mbaa ay loxoom mbaa ay tànkam ndegam jubluwu ci ak bànneexu mooy nag bu fekkee ne zihaar ba mu def ci soxnaam da ko aj ci ne ko bu nàngamee laata loolay am nag mu xor fase soxna sa ñetti fase mu ne kon zihaar ba dañ na di ki mu ne ko marché sàngam boo ci demee yaa ngi mel ni ci man sama gannaawu yaay laata soxna si dem ca marché boobee nag mu daal di koy fase ñetti fase mu ne kon zihaar ba dañ na bu fa jëkkër jaaroon mu wëlbatiku takkaat ko itam du tax ñu ne ko faaw nga def alamaan ci sa jihaar boobee nga ajoon ba tey bu fekkoon ne daañu ko wax soxnaam ne ko fase naa la ñetti fase door caa teg ne ko te yaa ngi mel ne ci man sama gannaawu yaay nga xam ne kon jihaar gi moom moom la mu di tudd gannaaw ba mu tuddee fase ñetti yoon la ko door tudd kon dañuy jàpp ne bu ñetti fase amee jihaar topp ca jihaar su du am fu mu dal ndax ne ñetti fase am na jeexal na boobu sëy ga lañ ca teg gannaaw ba ci jihaar amul fu mu tegu ba tey kuñ ko may koo xam ne jotuwut ak moom dara bu ko fasee ak fay lu du ca mën a am ndax ñàkk gaa wéet kon nag mu ne ko fase naa la pour caateeg ne ko yaa ngi doon ci man kat sama gannaaw yaay boole ci day jàpp ne fase gi tax na amul fenn fu jihaar sa mën a taxaw kon kuñ ko may rek jotuwut ak moom dara bu ne ko woon fase naa la tekki ne ko te yaa ngi mel ne ci man sama gannaaw yaay loolee mu wax muy jihaar amul fu mu tegu su ko takkaatoon gannaaw ba itam di tax ñu ne ko bala ngaa jotee ak moom faaw nga fay alamaan maanaam bu fekkee dafa tudd jihaar ja ba noppi door a tudd passé ma moom jihaar ja dal na ni ki bu nekk woon anti alayya ka zahri ummi wa anti taaliq daa njëkk ne ko yaa ngi mel ni ci man sama gannaawu yaay tayit fase naa la bu àggoon ci ne ko tayit fase naa la ñett dagam rek njëkk naa tudd jihaar fi moom jihaar boobu dal nay am bu wér a wér nga xam ne bu fa jëkkër jaaraatoon mu takk ko itam balaa joteeg moom war a fay alamaanu jihaar boobu bu fekkoon ne pase ma ak jihaar si dalee boole aj ci dara dañuy jàpp ne ndegam ñoom la bokk ajandoo ñooy bokk itam waxtu wu ñuy daanu doo demati sa kër bàjjen boo fa dematee rek fase naa la te it yaa ngi mel ni ci man sama gannaawu yaay nga xam ne kon pase gi ak jihaar si ñoo bokk fu ñu aju te mooy jigéen ji dem ci kër bàjjanam boobee kon nag bu jigéen demee ci kër bàjjanam boobee yaar yëpp am na pase mi am na jihaar bi itam am na nga xam ne bu demoon ba takkaat ko it balaa joteeg moom war a fay alamaanu jihaar door a mën a joteeg moom moom mi def jihaar dañ ko ne bala ngaa mën a joteeg sa soxna foofu da ngaa fay alamaan bi mu ne nag bu dogoo ci dellu joteeg moom rek foofu la alamaan bay waree nga xam ne li feeg amagul ak dogu ci dellu joteeg moom bu defee alamaan bi itam du tax mu baax mooy walaa tujj siw te du doy xam lu njëkk dogu ga li feeg dogul ci joteeg moom bu defee alamaan boobu itam du baax bala alamaan bay baax rek bañ koy def fekk mu dogu ci dem joteeg moom loolu nag fi ko alamaan bi waree dëgg-dëgg war goo xam ne moom du ko wàcc mukk-mukk mooy bu ko see jotee jigéen joojee jigéen ji wax ne ko yaa ngi mel ni si man sama gannaawu yaay bu ko see jotee moom rek alamaan bi daana koy war te du ko wàcc mukk bu faatoon ci gannaaw ba mbaa mu fase ko it ak lu mën di am daal moom ndax gannaaw bi mu defee jihaar ci moom jote naa ak moom rek mënta fexe ba alamaan bi wàcc ko dañ ko ne nag bala ngaa jotee ak moom defal alamaan bi dana araam nga jotee ak moom day fu alamaan bi waaye bu ko si jotee ak moom mënop moom faaw rek almaan ba du ko wàccati mukk mukk su fekkoon ne nag jutiwut ak soxna soosu dane ko rek yaa ngi mel ni si man sama gannaaw yaay laata muy joteeg moom dara far soxna sa faatu mbaa mu fase ko mbaa moom ci boppam mu faatu moom jëkkër ji kon alamaan ba wàcc na ko bu faatoo it kenn ku génne ca la mu bàyyi parce que may tax nag alamaanu jihaar bi wàcc ko day nekk parce que bu nanguwul fay li waaye parce que moo xam ne nangu na fay li moom du tax alamaan ba wàcc ko tey bu ñu nee bu ko alamaan jihaar bi waree mu fase ko parce que moo xam ne nanguwul fay li doon ci sax mëtu ñett duñ ko laajati alamaan bi mooy rek li fi jubluwu koo takk waaye bu kon takkal ne bu waxoon soxnaam ne ko yaa ngi mel ni ci man sama gannaawu yaay daal di koy fase fase moo xam ne nanguwul fay li kon duñ ko tuddal dara lu nuru naa ko defal kafaaram mbaa dara waaye nag bu demoon ba takk ko de moom faaw mu def alamaan boobee door a mën a joteeg moom waaye nag li mu defee jihaar bi mu bëtiku fase ko fase moo xam ne moom amutu fay li te it jubluwu koo takkaat kenn du ko wax dara lu jëm ci mbirum fay alamaan faat bi nag moom noonu la bu soxna sa faatoo nga xam ne kon takkaat mënta am ci kon jeex na defoon na ci soxnaam jihaar jotewut ak moom dara soxna sa faatu kon moom jeex na su fekkoon ne moom moo faatu it jotewut ak moom it ba tey noonu mu ne su tàmbali woon a génne alamaan bi niki bu dee woor mu tàmbalee woor baa bu dee jox ay miskin mu tàmbalee jox yenn miskin daal di fase soxna sa laata muy àggale léppi alamaan bi ne gannaaw ba ba mu fasee soxna sa ba noppi bu dogu woon ci àggale alamaan ba itam du tee rek alamaan bi baaxut yàqu na gannaaw ba bu takkaatoon soxna soose itam balaa jotee moom rek war a génne alamaan bu mat sëkk jàppal ni mu ko waxe dafa def zihaar ci soxnaam tàmbalee génne alamaan bi laata muy joxe lépp lépp daal di koy fase fase googu mu ko fase yàq na lam jotoon tàmbalee génne ci alamaan nga xam ne bu dogu woon ci gannaaw bi mu ko fasee mat li alamaan ba mat itam du tee rek alamaan bi moom yàqu na ba noppi su ko takkoon ci gannaaw ba balaa jotee moom rek faaw mu war a génne alamaan génne gu yees bu mat sëkk wax na jihaar wax na itam fa muy waree nga def alamaan bi mu wax nag jëmmi alamaan bi alamaan bi alquran moo ko tegalee foofee ca suuratul jidaal wax ne fa tahriiru raqabatin min qabli an yatamassa kon li njëkk ci alamaanu jihaar mooy bu dee jamono yi jaam amee kooku goreel jaam boo xam ne day nekk jullit bu nekk yéefar ba noppi nag yi mu lim li muy bari bari mu mucc ca te ba mu koy goreel mu wóor ne booba mucc na ca ndax bu dee jaam boo xam ne nekkul fa mu nekk mën naa ba mu koy goreel fekk benn ci sikki yi nekk ci moom kon dañ amagu wóorlu ne ba muy goreel jaam ba fekk ne li muy bëgg a tudd jaam ba mucc ca bu wér a wér lam njëkk a wax mooy bu benn baaraamam dagg ci ay baaraamam su benn baaraamam daggee rek du doyati bu benn noppam dagg bu noppam daggee du doyati bu mu gumba bu mu luwu bu mu tëx bu mu amee ak ndof doonte sax weer wu ne benn yoon la cay fay jëli bi daaneel ko it du ko tax a baax bu mu tawat waaye nag tawat yi ñuy bañ mooy àgg ci sukkuraat bu mu tawat tawat bu àggul ci sukkuraat rek buñ ko goreelee mu doy bu mu amee ngaana bu mu amee siti bu mu amee ak làggi bu mu amee ak màggat waaye nag li mujj wax muy làggeeg màggat moom bu demee ba jéggi dayo rek lay tee jaam baa doyee goreel ci jihaar waaye bu dee làggi ga daa woyof mbaa màggat ga demewul noona buñ ko goreelee mu doy mu xararatin lexoo nag lu ci am solo la mooy jaam ba muy goreel ngir jihaar na jihaar ba dong dong tax bu ca dara rax ka muy goreel ci jihaar bu doon koo xam ne da koo jege ci wàllu askan moo xam bokk ci ña ko jur la mbaa bokk ci ñoom jur mbaa ña ko jege ci mbokk ba nga xam ne yoon mëri ko mu moom ko nga xam ne saa yu koy moom rek yoon daal di wax ne gore na koo xam ne su koy moom yoon daal di wax ne gore na ku mel noonu mënu ko goreel ci jihaar ba tey ca nam koy goreelee bu ko ca benn njëriñ dikkal boo xam ne daa mel ne lañ ko ca worteel ca goreel ga doon ci sax lu ko ci dikkal ci lu nuru ak woyofal ak nattale la ak tolloole la mën naa am sax demewul noona ni ki jaam ba mu bëgg a jënd ngir zihaar bu wax ka koy jaay ne ko daa koy jënd ngir goreel ko bu dee daa koy jënd ngir goreel ko àggu ci wax ne ngir zihaar dana ko rek jaam bi dama koy jënd ngir goreel ko mën naa am kooko woyofal ko njëgg ndax lam xam ne bëgg ko goreel tax rek mu di ko jënd bu mel noonu du ko mën a goreel ci zihaar ba tey bu ne woon jaam sàngam su ma ko jëndee gore na bu ko jëndee mu gore itam aj dam ci ajoon goreel ga ci ni su ma ko jëndee rek ci lay féete waaye du mën a féete ci goreelu zihaar googee ba tey bu ne jaam bi dama lay goreel ci sama zihaar fii nga xam ne mënuma koo ñàkk def waaye nag damay sartonte yow buñ ci tegee weer nga jox ma nangam ci alal bu ko defee du baax nangu nañ sax alal ji teew joo xam ne moom da ko yore nga ne ko dama lay goreel ci zihaar waaye damay jël nag sa alal ji moom bu ne woon jaam bi su ma ko jëndee dal nay gore ndax sama zihaar si loolu am nag wuute daa ànd ci lu gën a dëgër rek mooy dana doy nde am na ñu ne bu ko jënd rek mu daal di gore te du ma seeti ci zihaaram ndax day mel ne baat ba mu ca teg xam zihaar yi daa rëcc rek wax ko waaye waralu ko woon maanaam jënd ko ngir zihaar taxutoon waaye wax ji gën a wóor mooy li borom téere bi wax dañuy jàpp ne rek doy na mu ne itam jaam ba muy goreel ci zihaar day doon boo xam ne amutoon dara ci ngor di jaam bu sot bu doon ba mu gannaawal mooy bu waxoon ne ko su ma deexee gore nga mbaa jàmm tàmbalee jot boppam mbaa fekkoon ñu goreel lennam lenn la def ci di ak njaam benn du ci doy goreelu jaam ba day jekki-jekki rek lépp gore waaye su fekkee dana woon goreel naa genn wàll gi ci alamaanu jihaar ñu ne ko yoon day def soo goreelee lenn sa jaam yoon ne la mottali na goreel gi lépp gore kon goreel gam goreel genn wàll ga ci jihaar yoon mottali ko du ko tax a doy su fekkoon ne sax daa njëkk goreel genn wàll ga ci jihaar door wëlbatiku goreelaat genn wàll ga ca des ci jihaar kon mel na ne jaam bi lépp dugg na ci alamaanu jihaar te moo ko ci dugalal boppam waaye da koo defulawul benn yoon goreel ngay doon rek ci benn baat lépp gore waaye goreel genn wàll gee wala goreel la ca des moom du baax moom daal mu ne goreel naa genn wàllam ci jihaar yoon daal di mottali genn wàll ga ca des mbaa sax moom ci boppam mu door a mottali genn wàll ga du tax dara doy ca bu defee jihaar ci ñaari soxnaam mbaa lu ko ëpp tudd nag li mu ay daam yoo xam ne yées na li mu soxna ya du ko tax a baax mel ne moom ñetti soxna la am kenn ku ne mu def ca zihaar daal di wax ne goreel naa ñaari jaam nag muy zihaaru ñetti soxna yi koy du doy ba tey bu fekkoon ne li mu soxna yi nga xam ne ci la def zihaar te war leen a goreel kenn ku ci ne ab daam ne lim ba toll ci ay soxna tudd na it lim bu toll noonu ci ay jaam ne ñoom la goreel mbaa sax limub jaam yi ëpp na limub soxna ya waaye da caa yéene ak bokkaaleel bokkaaleel mooy day wax ne ñoom ñëpp dañuy daje ci benn jaam ku ne am cab kaar bu dee ñeenti soxna door jàllaat jaam ba ca des ku ne am cab kaar door jàllaat jaam ba ca des ku ne am cab kaar ba ñeenti jaam yu mat bu baax ndax dañ ne woon goreel ga daa war a jekki-jekki sottee doo benn yoon te bu nee nag jaam sàngam la ñuy njëkk séddoo ku ne am cab kaar door jàll ci beneen moom bu limub jaam yi ëpp limu soxna yi du ko tax a baax lay baax daal mooy ñu jàpp ne jaam bu ci ne féete naag benn soxna ba noppi nag limub jaam yam goreel ba ñu yées limub soxna yooyee jaam bu gumba moo dul doy waaye bu patt moom bu ko goreelee mu doy jaamam boo xam ne moom dañ ko nangoo ci moom ci doole teew koo nekk ci moomeelam bu ko goreelee ci zihaar mu daal di doy jaamam boo xam ne dafa leboon bor tayle ko ca wala jaamam boo xam ne dafa tooj ab jaambur ni ki dag ab loxoom mu ne bu leen goreelee ci zihaar dañuy bàyyi ba mu def la ca war jaam ba ñu tayle bu dee goreel naa ko ci zihaar lay tax mu doy mooy mu fay bor ba mu leboon ba tax mu tayle ci jaam ba su booba mu daal doy jaam bi tooñ ab jaambur ni dagg loxob jaambur itam bu lijjantee tooñ googee ba noppi gore dam ko goreloon ci zihaar daal di doy waaye li fekk nag lijjantiwu leen bu ñu doy ci alamaan jëmmi baaraam ba ci boppam dagg ba set mooy aay moo koy tee doy waaye nag baaraam ba manqué ab kóol rek du ko tee doy tawat sukkuraat mooy tee goreel jaam ba doy waaye tawat joo xam ne aggu ci sukkuraat ci gàttal du tee bu ko goreelee mu doy làgg yi doo xam ne aggu ci jéggi dayoo du tee bu ko goreelee moom jaam ba làgg yi mu doy wa xas yun ak ku ñu tàpp jaam bu ñu tàpp bu ko goreelee mu doy waaye wax nañ ne sib nañ ko goreel jaam boo xam ne kenn tàpp ko moo gën dañ ne woon benn nopp ba dagg rawante na ñaar nopp ña mooy tee jaam baa doy waaye nag bu amee luñ joof lu ñu dog ca nopp rek du tee mu doy bu ko keneen goreelelee ab jaam defal ko ko alamaan bu fekkee ne dogoon na ci dellu joteeg soxnaam te it gërëm la ko kookee defal boole ca mu daal di doy li ñu wax nii mooy keneen moo yëg ne def na zihaar mu daal di koy goreelal ab jaam bu ne nag ñaari sàrt mooy tax loolee ko kookee defal baax mooy bu fekkoon mu dogu ci dellu joteeg soxnaam ak it li ko kooko defal muy goreelal ko ab jaam muy zihaar mu neex ko mu nangu ko mu neex ko mu ne nag koo xam ne dafa tële ci goreel ab jaam la ca topp mooy woor yaari weer ca ne mu ko bëgg a waxee mu ne waaye nag su xasee mën a goreel moom doonte sax su goreelee jaam ba du desee ci dara dara dara day jeexal tàkk tàkk alal du tee mu war a goreel jaam ba bu amoon benn jaam dong sax te moom daa wéré di ba mënta ñàkk jaam bu koy toppatoo mbaa dara jaam daal ak na ci moom faaw war naa yore benn jaam bu koy toppatoo bu xësee def jihaar moom faaw rek mu goreel jaam boobee bu wooree itam du baax waaye bu ko tëlee dëgg dëgg nag moom kon saw mu shahrayni woor yaari weer mu tataa bi xëy yi aji toftaloo mooy ca topp di alamaan daal di wecci goreel jaam ba yaari weer yi moom day war a susuloo rëkk rëkk rëkk di ca dog benn fan bu fekkee da ko tàmbalee ci njëlbéeru weer kon yaari weer yi day tegaloo rek weer wu ci nekk nam toll moo koy war bu dee fan weer di fan weer ko manqué ñaar ko juróom-ñeent it noonu su fekkee nag weer wu njëkk ba mu njëkk woor tàmbali wu ko ci njëlbéen ga ay fan jàll na ca mbaa benn fan sax mu door a tàmbali kon weeru ñaari loo moom na mu toll lay toll waaye weeru njëkk woowu day xam la mu amoon ci weer wa mu tàmbalee woon la ko ca rawoon nag mu fay ko ca weeru ñetteel wa mel ne bu fekkoon ne ci tam xarit la tàmbalee di woor yaari weeram waaye tàmbalewul ci teru tel tam xarit ay fan jàll na ca mbaa benn fan mu door a tàmbali kon digg bi nga xam ne moo sës ci tam xarit da koy woor na mu toll rek lay toll bu àggee nag ci ñetteel ba muy weeru gàmm wa ca lay mottalee mooy ca lay fayal la ko rawoon ca weeru tam xarit wa jamono yi jaam amee nag ab jaam bu defee jihaar moom koor rek lay mën ndax ab jaam mën na am jaam ne moom waaye li fee goriwut du mën a goreel tayit dañ ko moom moom alalam moo tax kon woor rek lay mën te mu ne sangul jaam ba su jaam ba bëggee woor ci jihaar mën na koo aaye ne ko du ma la bàyyi nga woor bu seetloo ne li mu ko tobbil muy aw sas ne ko bis bu nekk nag ma jox nangam ci wurus mbaa xaalis la mu ko ne daal bis bu na ma ko jox bu wooree du ko mën a mataleeti mbaa la mu koy liggéeyal bu xësee woor du ko mën a liggéey na mu ko war a liggéeyee mën na ko ne kon du mu la bàyyi nga woor bu ñu nee nag tële na ci goreel ab jaam cee jamono nga xam ne jaam daana am waaye moom mu tële ca mën ko fexe ba goreel ab jaam ñu ne woon kon day woor mu ne nag bu xasee dugg ca koor ga ba tàmbalee woor bi sub ñeenteel ba su ma nee goreel itam du sañ a bàyyi koor ga di dem ca goreel ga bisum ñeenteel ba moom bu fajar ga jotee ba mu tàmbalee woor bisum ñeenteel boobee deltu gannaaw bàyyi koor gi dem goreel ak lu mu ko mën man moom goreel ga du ko sañati faaw rek day wéy ca koor ga lu may nag koor ga yàqu su dee woor nag ba koor ga yàqu te mu am man manu goreel te daal di goreel mu nekk ab alamaanam bu demoon sax ba benn bis des ca koor ga ñaari weer yi dem na ba benn fan des ca bu koor ga yàqoo rek ca bis boobee nga xam ne benn fan moo ko defee woon it day bàyyi koor ga daal di goreel lay jamono su delluwaatoon bëgg woor it bañ a goreel it du ko mën daa waxoon ne moom bu xasee dugg ci bisub ñeenteel ba tàmbalee woor du sañ a deltu gannaaw di goreel ak lu mu ko man man lu may koor ga daa yàqu mu ne nag bis ba mu njëkk woor la ca dalee ba ba muy àgg ci fajaru bisub ñaareel ba nga xam ne diggante boobu bu fi mënee goreel day bàyyi koor gi te goreel bu xasee tàmbali nag bisub ñaareel boobee jëm bisu ñetteel jàll ba ci guddi bisub ñeenteel ba laata muy àgg ca fajar ga diggante boobu bu fi mënee goreel dañuy sopp ci moom rek mu bàyyi koor gi te goreel waaye bàyyi ga koor ga du ko war bu duggee nag ci bisub ñeenteel ba moom ba tàmbali ko woor woor rek lay sañ a def du sañ a bàyyi koor ga di dellu ci goreel loolu mooy taqale bi boo ko seetloo am na foo xam ne bàyyi koor gi dellu ca goreel jaam ba da koo war am foo xam ne bàyyi koor gi dellu ci goreel ga dañ koo sopp mu ne nag bu ko ci tàmbalee woor bis rek moom àggalu bis boobee lu war lay doon du ko sañ a bàyyi mooy du sañ a dagg koor ga faw mu àggalu bis boobee moo xam day dellu ci goreel ci lu war moo xam day dellu ci goreel ci sopp waaye bis moom tàmbalee woor ba dugg ci koor ga moom day war mu àggale ko mu ne nag bu fekkee ne dafa tële woon ci goreel ab jaam amul daal benn manu goreel jaam ci wàllu xeetu alal bu seet daal la mu am lépp lépp lépp du mën a fexe ba am ca lum wuti ab jaam goreel ko da nga bañ a fàtte ne li suñ borom wax ci jihaar wa innahum la yaquluuna munkaram min al qawli wa suran li yàlla waxe ci jihaar te fekk ñu daa ko def disal ko loolu daa tax mu mën a fexee ba goreel rek moom lay def du ko sañ a bàyyi dem ca koor ga donte genn kër dëkkuwaayam dong la am bu ko jaayee du amee geneen kër it faaw rek mu jaay kër ga jënd jaam ba goreel ko ne comme jaam mën naa am door a mën a joteeg soxnaam soosee bu doon kuy jàng te amul lu muy téere yi muy jànge ci gàttal daal lam am ci alal lu muccal loru loru loru bu xasee def jihaar bi moom te nga xam ne loolee bu ko jaayee mën caa jënd ab jaam faaw rek mu war a jënd jaam ba goreel ko door a mën a joteeg soxnaam soosee fi mu toll nag mooy su fekkoon ne seet nañ seet amul dara dara ci alal loo xam ne mën na caa jënd ab jaam waaye teewul nag mu toggoo ay coono ba fexe ba goreel ab jaam mu ne ko it dana doy mel ne moom ci bopp amutoon mel ni pexe bu may leb mu dem nag gàddu gàddu yëfi jaambur ba jënd ci ab jaam goreel ko ko it lam def doy na ndax yu bare bari dañuy wax ne warutoon nit ki waaye nag bu toggoo ay coono ba def ko itam mu baax mel ne aji màkka ku ko mënut waru ko waaye nag bu toggoo ay coono ba def ko itam mu wàcc ko koo xam ne bu jàppee mbaamu sangu farata dana metti ci moom lool lool lool dana ca lor lool bu àgg na ci faatu mbaa yàq benn cëram waaye dana ci lor lor joo xam ne di diis gis lay doon loola waru ko woon waaye bu ko toggoo nag dogu ci jàpp mbaa sangu farateem loola baax na fiit noonu mel li mu tële tëlee ci wàllu man mënu boppam ci goreel ab jaam waaye def na pexe yam man toggoo ay coono ba goreel jaam ba it mu doy nga seetlu li mu ne bu toggoo ay coono ba goreel rek mu doy néewut lu ñu sopp la néewut loolee mu def dañ ko cay tagg di ko ca kañ ndax mën naa mu àgg ci def lu araam mel ne mu dem leb te wóor na ko ne li muy leb du ko mën a fay te ña koy lebal ñoom xamuñ ci moom loolu su boobaa leb googee lu araam la te du tee bu lebee nag ba goreel jaam ba mu doy ba tey bu demoon di laaj rek te lislaam moom diisal lool laaj nit ñi seen alal moo xam day ko aadawoo laaj moo xam du ko aadawoo laaj bu demoon di laaj rek ngir am lu mën a gorele ab jaam dana def lu siba sib mu ne nag soxna si mu def zihaar ñu ne ko bala ngaa mën a joteeg moom def alamaan bi bu tàmbali woon a woor laata koor gay jeex rek mu joteeg moom la mu defoon ca koor ga lépp yàqu na da koy tàmbaliwaat bu demoon benn fan des ca mu joteeg jigéen joojee doon sax ci guddi ga la joteeg moom te tëyu ko da koo fàtte woon te tey koor gi lépp yàqu na da koy tàmbaliwaat loolu nag kon lu diis a diis la ndax jote ba guddi la te it koo fàtte woon waaye du tee rek la mu jote woor lépp da yàqu bu doon joxe ñam itam joxe ñam dana ñëw ci kanam moo ci mujj ku tële goreel tële koor joxe ñam moo ci mujj bu tàmbali woon a joxe ñam woowee muy alamaanu zihaar ba laata muy àggale muy laata muy joxe lépp daa joteeg soxna soosee lam defoon lépp yàqu na da ko war a tàmbaliwaat bu dee koor na kooru zihaar googu ñu war a toftale na moytoo dem di tukki bu tukki ba di ko yóbbee dog koor ga bu tukkee ci jamono ya muy woor du tukki ba tax koo dog koor ga rek lam doon woor lépp yàqu na mu war a tàmbaliwaat bu fekkoon na it jëm tukki ba ci boppam du moo ko tax a dog waaye tukki ba daa tax mu tawat tawat yoo xam ne tax na mënta woorati nga xam ne kon tukki ba moo jeqi moo yëngal tawat ja ba tawat ja tax mu dog koor ga mel ni mu amee tension rek tukki bi metti coono yi jàpp ko ba mënta ñàkk a dog wala mu amee asma dem di tukki nag metti tukki baag yëngatu ya tax asma ji yëngal ko bu mënta ñàkk a dog mu daal dog kon la mu wees woon lépp ci koor yàqu na day tàmbaliwaat bu fekkoon ne nag tawat ja ko tax a dog wóor na ko ne tukki bi waralu ko leneen moo ko sabab waaye moom du tukki bi ba tax mu dog koor ga kon la mu waroon baax na la mu waroon du yàqu su waree te wóor ko ne bisu xiit muy bis tabaski dana bokk ci ñaari weer yi te bu ci àggee du ko mën a woor mu tey ko noppi nag def ko koor ga yàqu mel ne mu woor diggu tabaski tàmbalee ci mu wóor ko ne kon weeru ñaareel wa ca la bis tabaski bay bokk ndegam xam na ko ba noppi def ko moom bu wooree ba àgg ci bisu tabaski ba dana araam mu woor ko te it toftale ga yàqu na faaw day tàmbaliwaat rek woor su fekkee daa xamutoon ne lii ñu woor kat faaw bis tabaski bokk ci mel ne daa jaawale woon weer yi jàppoon na woor weeru korite ba ak diggu tabaski ba diggante yooyu moom li mu tàmbalee mooy diggu tabaski tabaski topp ca umpali gaay tax bu àggee ca bésu tabaski ba bu ko sañ a woor waaye du tax nag kooram yàqu dañ koy wax ne ko nag ñaari fan yi ci sës moom na nga ko woor bul ko jël kenn du coobarewu sax woor ñaari fan ñi topp ci bisu tabaski waaye nag bu dee moom mii taw mu woor ñaari fan ñooñee bu ko wóorul rek ñu jàpp ne kooram yàqu na daa war a tegaloo te tegaloo wut weeru koor itam ba ca àggee woor ko ramadan rek lay nangu bu bu ca juumoon nag tàmbalee woor baraxlu jàpp ne ndeyu koor muy rajab ca lañ toll ndiketewu moom baraxlu la tàmbalee kon xam nga ba àggee ca ramadan mooy doon weeru ñaareel ba ñu war a sësaloo waaye ndegam ñàkk xam a tax dañ koy jéggal rek ba àggee ci ramadan woor ko muy ramadan bu weesoo nag bisub korite ba rek daal di ci sësale woor weeru ñaareeloo muy woor wi muy mottalee alamaanam foofu itam umpile bi ramadan ba tax mu tàmbalee baraxlu xamutoon ramadan moo ci topp moo tax ñu may ko loolu waaye bu ko xamoon tay ko moom baraxlu moom tàmbalee woor du baax ndax du mën a sësaloog ramadan ci li muy woore alamaan bi saa yuñ ko nee ñàkk nga ñàkk a sësale koor gi di yàq sa koor la mu war a fay na ko daal di fay fa saasa saasa bu sës ca koor ga bu dee bi suhiit ba bi matal koor gi rek na ci sësale bi suhiit ba daal di koy fay bu dee ramadaan buy war rek bi si korité ba buy jàll rek na daal di sësale weeru ñaareel wa mu ne loolu nag bu ko defut doonte fàttee tax day jàpp ne daa sàggan te wartoon a sàggan daal di ko ne la nga wooroon yàqu na tàmbaliwaatal mu ne nag buñ ko forcé woon ba mu dog koor ga mbaa mu ñàkk sësale la mu war a fay ca koor ga it waaye forcé la moom du yàq dara ca lam defoon bu wooroon ba jàpp ne itam jant bi sona tax koo dog nekk jant bi soxagutoon mbaa mu yéex xadd ba fajar fenk te jàpp ne boo fajar fenkagutoon it du yàq dara ca koor ga du yàq ak toftaleem bu fàtte woon ne ci koor la nekk itam liy wax jiw bu lekk mbaa mu naan itam du tax koor ga yàqu li mu war a fay rek na ko fay ca war a yemale koor ga te mu sus ca koor ga ni ñu ko xewoon léegi mbërëg wasin moom góor du ko def waaye day wane ne kafaarak rey ak kafaarak bokk ci weeru koor te tey ko daañu waral alamaanu koor bu ñuy war a toftale lu wane nag ne bu dee jigéen la ko tee toftale bu dee gis baax mbaa déreti wasin di yàq ak toftaleem di yàq kooram day jàpp ne ba tey koor ga tegaloo na dañ ne woon alamaanu jihaar dañ koy toftale boo tëlee bee jàll ci bee tudd na goreel jaam teg ci koor mu ne nag koo xam ne mënta woor te jàpp na ne moom lu yàgg-yàgg itam du mën a woor kooku nag mooy lele juróom benn fukki miskiin lay leel ñu di ay gor di ay julit kenn ku ci ne bu dee foo xam ne bele pepp bele la ñuy dunde kenn ku ci ne da koy jox mudd ak ñaari ceeri mudd mudd daañu ko firee livre kon boogee yombal prix mi nga ne kenn ku ne mu jox ko ab livre ak ñaari ceeri livre su fekkee foofa nag du ñu dunde bele leneen la ñu dundee kon dañuy seet la nga xam ne ku ko lekk ci pepp mbele regg anum tolloo ci loole ñu baaxoo dunde foofee man ne fekkee ne fii suuna ak saaño wala ceeb moo fi am bu ñu seet lu tolloog benn liibar ak ñaari ceer ci ceeb mbaa loolee dañuy wax jëmm joo xam ne benn liibar ak ñaari ceeri liibar moo koy reggal ci bele ana nag lu toll nan moo koy reggal ci leneen lu bokkut ak bele mel na ceeb mbaa mboq yooyu bu waree jox miskin ba nag liibar ak ñaari ceer ci bele mu jox ko nag añ ak reer lay tax añ ak reer ba ñu ne doy na mooy ku ko seet mu toll ne liibar ak ñaari ceer ca bele boobee bu ñu wóorloo ne daal moom la nga ko jox muy añ ak la nga ko jox muy reer mat na liibar ak ñaari ceer liibar ci bele mu doy bu ci amutu wóorlu rek du doy dañ ne woon jaam moom koor rek lay def waaye nag su fekkee ne mënta woor mbaa mën na ko waaye sang ba moo ne ko doo woor ndax boo wooree li nga may liggéeyal doo ko mën li nga ko war a mëne mbaa li ma war a jox bis bu ne doo ko mën a jox kon bu ko sang ba nee may naa la nga leele maanaam nga def leele ñam muy sa kafaar mën naa def leele googu muy kafaaraam ndax sang baa ko moom moom alalam bu ne kon kon al ji nga yor may naa la nga génne ci sa kafaara muy sa alamaan loola baax na